nuyu nañ leen yéen euh, mbokku Dakar People ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp tey nag euh, yaakaar naa jëmm jigéen gis keneen lañu ñu présenté te ba mu des moom mu di Jimbori te nag ñu fas yéene yaataan ci ponk yu bëree bëri nañ ci waxtaan mu di xew-xew jamono ji ak Jimbori bi ñu dañuy bàyyi nga nuyoog askan bi. waaw waaw maa ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu li ngeen di def wax dëgg yàlla parce que comme seen site bi euh, sit bu ma naw la bu fekkante ni site moom. day dox lu baax di publier lu baax di yokk di def loo xam ne day yokk askan tamit man site boobu dama koy bëgg quoi wax dëgg yàlla waaw bëgg naa ñëpp di ma jël mais bu ma sañoon tamit am ñu may jël daal am ñu xam ni tamit ñu ba ma fi mais ku ñëw ma demaa ah. <laughs> wax dëgg yàlla mais kontaan naa si yéen torop wax dëgg yàlla nuyu nga ñëpp mais daa am ñoo ko xam ne fàtte nga ko to xam nañ la Adamo sa xarit anamu doo ko nuyu xanaa non Adamo ah, sama xarit la hmm, du sa xarit ah, sama xarit de mosuñu gisante quoi. waaw doo ko nuyu. ah doo ko nuyu. non man maa ngi nuyu ñëpp. seen diggante yaak moom ah ma ne sa diggante yaak moom comme derbi lu xew la. no foofu du derbi de. Hmm. du derbi ñun man damay gis loo xam ne euh, li jaaduwul ma génn rek wax ko ah nit ñi ñoo xëy na nit ñi ñoo koy jàppee derbi mais man jàppee moo ko dër wax dëgg yàlla en tout man su ma gisee loo xam ne da nga ko def waa réew mu te ci réew mi laa nekk vraiment damay génn wax si su ma nekkoon ci tubaab ya sax dëkk fa ku def tubaab yi dara damay génn parce que nii nii nii moom muus mu ñuul ak muus mu weex buñ doon xeex sax muus mu ñuul mi faral ko wax dëgg yàlla fii laa nekk ci dëkk bi xam nga lu ñuy luy sàmm jikko yi loolu si boppam dama leen koy sàmmale daal. bugguma ko dugg si dëkk bi di def non sens bugguma loolu. ngoog dinañ ñëw foofu yaatal sax dinañ desaat foofu bu baax a baax. da nga yëngatu ci politique. non non. Hmm. man du may politique quoi. amoo xarit dara yooyu politique ak yooyu noonu. non man aw xarit buy politique benn grand la am euh, mu toogoon bëgg a dimbale waa Caaray xam nga muy Abdou Aziz Sila ak Jiba xam nga biñ koy def tamit doon naa ànd ak ñoom waaw loolu daal. Mhm. waaw bu dul lool moom politique moom xam nga ñaanuma yàlla sax def ko ak ñii fi nekk nii ni ñuy politiquer nii ku bëggoon politique sax war nga bañ politique ndax façon politique yi ko <laughs> wax dëgg yàlla. tarkalla ah. am na solo dañuy ñëw gën a yaatal foofu noonu damay ñëw tuuti ci xew-xewu jamono su ma ko waxee mu di milieu artiste bi danga koy gis art bi yaatu na waaye dañuy gis euh, léegi théâtre ni muy doxe ak euh, yenn série film yi ndax yow lu nga ko. non xam tamit artiste ak décor du benn quoi. waaw mhm. ah. léegi bëreetul. décor moo bëri da gis ko xam ne day bind filmam xool la nga nduroog film bi mu jël la nga tourné ko lool moo fi am mais le mot artiste xam nga artiste si olof boo ko dee tekki nan la tudd artiste yi aar li sa maam parce que guinéen bi tamit day aar li maamam bàyyi kongole bi aar tubaab bi aar keneen ak keneen moo moo tax mu tudd aar aar mais looy aar mhm. li sa maam bàyyi quoi mais léegi gis ko xam ne day dem seetaan Nollywood copie fa benn film ñëw copie collé lay doon bu ko joué fii film yu bëri ñuy joué fii ak réalité sénégalais yi nekkul sax benn nekkul sax benn yow boo ko seetaanee nga doon ku wayadi wala nga seetaanandoo ko sa jëkkër ba gis euh, euh, actrice bi li mu def ba mu tax nga tas sa sëy tamit boo génnee li actrice boobu di wane nekkul moom lay dund waaw wax dëgg yàlla. ndax yenn yi nga ciy gis rafetlu nga ko ndax da ngay gis série yi léegi lu ne da nga ko ciy gis ay sumee boobu lu nekk ndax lool bokk na ci loo xam ne. day rafetlu nga ko non loolu ak théâtre bokkul. ñii daan bind théâtre bindatuñu. ñi ko daan tourné tourné tuñu. ñi daan réaliser réaliser tuñ ñii ñëw nii. Mhm. dañuy def li leen neex rek. man pour man ay film porno la ñuy tourné maanaam comme lan lo bëgg a wax foofu. non pour man ñoom ay porno la ñuy tourné quoi. subhanallah porno nga wax de. porno la ñuy la ñuy tourné. koo xam ni da ngay génnee say ween kii génnee kiiyam ngeen di taxaloo mel ni nangam nangam ak réalité sénégalais yi bokkul li ñuy filmer ñoom ak li xew Sénégal dafa sax bokkut wax dëgg yàlla pour man ay joué katu porno noo laa leen jàpp wax dëgg yàlla waaw. Mhm. yow doo amoon message boo xam ne da nga koy lancé jëmale ko ci ñoom man lay doon comme que dem nga ba ne porno la ñu joué. non comme ñu jàng théâtre quoi xam nga tey boo doon seet comme Baye Cheikh Seck su dee joué da ngay yow da ngay carrément da ngay yëg sa bopp xam na lii réew mi am ay ñoom mandoon ay ñoom saa neex affaire yooyu bu ñuy joué da gis sa bopp mais quand nga jékki-jékki benn waaju xam ne xëy cëp entraîné génnee cas bi ñëw nee na ay day def film cinéma kooku man du ma ko xàmmee wax dëgg yàlla man du ma xàmmee ñooñoo ah. man ñi ma xàmmee daal mooy théâtre kat yi mhm. ay ñoom Baye Cheikh Seck ñoom lees ñoom almaami xam nga Leyti Fall ñooñu xàmmee naa leen ñoom ñoom grand zoo daal zoo mbay ma jaaga ñooñu laa xàmmee mais kanta ñeneen ñi man boolewu ma leen ci théâtre kat yi sax duñu ay artiste quoi waaw mhm. ah. aca ndax kenn ku nekk am na koy safo ci milieu bu mu mënti doon du doon ci woykat yi kan nga kan moo doon sa woykat man mhm. man Thione Seck Thione Seck kon dina neex ma mën laa laaj tuuti lu jëm ci njobootam digganteem ak Wally Seck Wally Seck ak euh, kii di Sidi Diop coow li bëri na fi mu ne nii sànnante track bi bëri na euh, mu mel ni ku nekk yaa ngi xëcc di jëmale euh, rawatina fans yi ñu nekk ñu koy gisee seen biir yow lan ngay wax diggante boobu waaw xam nga ñooñu coow moo leen boole mais du làmb xam nga léeg-léeg da ngay gis mbër moo xam ne coow moo lay boole ak mbër mi mais làmb boolewu leen dégguma loolu day wax ak Wally Seck coow moo leen boole mais mais mais du du làmb du nekkuñ sax naataangoo wax bi nga koy wax nii ma di ko wax moo leen boole mais bokkuñ parce que Sidi tamit kenn werantewul mën na way mais tey dama lay jox benn exemple mhm. ndax siidi Diop ñeme na Waly sekk di dóor fii moom mu ñëw di door foofu ah, ndax la lu xew du jaay bie du jaay bie déet du jar am na ñoo xam ne bu Sidi Diop doon tëgg fii est ce que na ñoo tëgg si wetu Sidi Diop affaire bi ay rawante la quoi ba pare est-ce xam nga roi di mbalax bi muy am ba léegi roi mi ngi doog am muy kam mooy waali Seck hmm. waaw Youssou Ndour sax musul nekk roi di mbalax daf ko daan doon di ko perte parce que bu njëkk ba kaset yi da ngay génnee cassette mu cartonné bu déwénee keneen génnee gën la cartonné Youssou nekk na fii di dóor Aliou Mbaye Nder di dóor gore gore Youssou amul dara ñu bàyyi ko kon Aliou kuy roi ma moment boobu du Aliou Mbaye Nder Lemzo jamono tamit daana xatal Youssou Ndour yaa ngi dégg Manel Diop aussi kanaal di Kajoor daana xatal Youssou Ndour am na année boo xam ne nii bii Ousseyn Ndiaye génnee Baywaali Ousseyn moo cartonné am na année boo xam ne Baaba Maal bi mu génnee dikkam Baaba Maal moo cartonné kon roi di mbalax mi ngi doog a am parce que kii buy door ñeneen ñëpp duñ nangoo dóor. Mhm. mais Youssou da daan dóor di door mhm. ba pare Youssou da daan jékki euh, at bi cassette am cartonné de ca déwén sa beneen cassette cartonné léeg-léeg tamit coon sekk tamit cartonné léegi kon foofu ana roi di mbalax. damay dellusiwaat sànq bi ngay wax ne nga du siidi tëggee fii wala tëgg fii siidi du gis dara kenn du jënd loolu waxi far la wala lan. wax waxuma waxu far de dama lay wax carrément. li am su fekkee siidi waali sekk de li waali sekk moo buy buy dóor actuellement nii ci jamono jii ñu toll. Mm-hmm. yaa ngi dégg yàlla moo njëkk wax ni sama nitu tey gàcceel na sama nitu demb. yaa ngi dégg su su dekkee waali Seck dafa am programme jàpp dat mu koy tëggee fii fii nii fii nga jëlaat beneen saal fii musicien boo bëgg a indi du ko nangu sax yow sax xam nga li ma la wax actuellement ni noo moo raw moo raw Sidi Diop actuellement nii kenn werantewul Sidi tamit am na ku mu raw kan la Sidi raw nga ni kan la Sidi non du keneen parce que ñi ngi ma laaj rek laa la wax mais am na ñoo xam ne ñemewuñu Sidi Diop di tëgg ñu ñëw di tëgg si wetu Sidi Diop Sidi Diop tamit ñemewul Waly Seck di tëgg mu ñëw tëgg si wetam déggoo ma ne wax la ma ne la roi di mbalax bi muy am ba léegi ñu koy wax mi ngi doog a am actuellement nii xaw ma nag ci kanam mais Waly chaque jour keroog bi ñuy def affaire Lions yi. bi ñuy commencé way boo bokku ci de. mais bi Lions yi ñëwee moom lañ woo waxal. gis nga aar du biir day xëy wasin yaa ngi dégg mhm. c'est-à-dire moom li mu sonn ba am lii keneen tamit bu ko sonnee am lool parce que aar du yëfi kenn yëfi ku ci sonn la comprendre nga li ma la wax loolu laa lay wax nii quoi da ma ne la coow moo leen boole mais du combat wax dëgg yàlla nekkul combat mhm. ba pare legle léeg da ngay Sidi Diop bi muy doog a ñëw si waali la doon nekk am na wala amul mhm. mais léeg-léeg da ngay nekk ak sawaay am ku la gis ak sawaay iñaane sawaay waay jëleleel sawaay indi la ci boppam te bu la yóbboo sa xel ak sa xalaat yëpp si sawaay lay nekk. loolu ko waral. non dama defa ni Sidy boo xaree xol bi di nga fa fekk Wally Seck c'est-à-dire ba gis nga musique. Mhm. dafa dafa am loo dafa am lu garaaw parce que léeg-léeg da ngay gis anglais bi di way portugais bi di bokk ak moom musique bi olof bi bokk ak moom bambara bi bokk ak moom ñu nekk même millier di dóor. musique moom moo nekk loo xam ne partage la. Mhm. Pape Diouf su taxalikoo ak Waly ñàkk. Sidi Diop bu taxalikoo ak Waly ñàkk. Waly bu taxalikoo ak Sidi Diop ñàkk parce que musique ñoom ñu gars yi am na gars yoo xam ne dañ leen wutee buzz dañ lay wutee buzz diw yaa mën diw diw yaa mën lii nangam nangam ñoom seen tur mooy dem. Mhm. yow nag dañuy yàq sa musique dem seen yoon. wax dëgg yàlla. Mhm. mais actuellement nii. Mhm. Wally sekk moom moo jiitu. coow li waaw moo jiitu yaa ngi parce que bi ñuy wax ba léegi. mosuloo mhm. gis Wally def benn way pour jëmale ko ci kenn. gaa yi kay ñooy jof way jëmale ko ci Wally. yaa ngi dégg loolu laay wax nii. man damay bëgg a wax daa nekk ah. noonu da bëgg wax kon loolu gaaru waale ngi ci biir. waaw waale yi ñuy def noonu. ñoom tamit noonu la ku la raw bëgg nga koo dabi ah. wax dëgg yàlla képp koo xam ne gis nga ku la raw bëgg nga koo dabi ah. mais roi di mbalax moom mi ngi doog a am li ma la wax nii moo ci nekk Youssou tey da daan jekku at bi at bële Ismaïla Lo jekku ko Ismaïla Lo moo njëkk a jaay cassette 1000 francs moo daaneel cassette bi mu naan damay merde si la daaneel cassette 1000 francs cassette 2500 la daan jar am na ñu daan def kaset du jar xam nga ñii. sant nañ sant yàlla bu baax bi ñu fekkewul jamonoy jaay cassette waaye ñu si baari bu ñu fekke woon jamonoy jaay cassette seen ronu lal dana fees dell ak i cassette kenn du ko jënd. mais internet nag moom ku tapé day dugg ak yooyu du ñu xam ku mën a ku mënul mais bu njëkk ba dañ daan xam rapidement kii moo cartonné. mu ko Omar Pène génnee na nii la diggante quatre heures ba cinq mu jaay ñaata million jaay lu kenn jaayul kaañu ñu ngeen mu bëree fii roi bi kenn musu ko gàdd yor ko. <laughs> da ngay gàddu tey sa morom gàddu suba yaa ngi dégg. waaw mais actuellement nii benn nit moo ko gàddu parce que fuy tëgg ñeneen ñi duñ tëgg kon gàddu na ko. waxal rek mu wax dëgg yàlla. moom mi ngi doog a am. waaw. Euh, yaa ko ko dinañ euh, dellusiwaat. non li ma la wax dama ne jaadu na wala jaadu dama laa wax soo mhm. bëggee dama lay limal ay at yoo xam ne Youssou nduur dafa perte day perte kasatam du jar. ñeneen ñi ñoo koy gën a jarle. non Youssou moom daa mos a am buzz waa déglu mu neex waa déglu déglu ma wax la Youssou nduur am li ma la wax nii déglul bu baax dama ne la dadaan am at boo xam ne Umar Pen kasatam mooy gën a jar. at bële Youssou Ndour gën a jarle beneen at Baaba Maal gën a jarle beneen at xam nga euh, kii coon euh, sekk jarle da am ñoom ñëpp lañ daan jënd mais da am année bu nek ku gën a jaay dadaan am ku gën a jaay kaset ak ku nga xam ne temps boobu ngénte yi ñoo fi amoon ak nangam nangam temps boobu ku ñu gën a teg sa kaset yaa cartonné kon leer na yaa ngi dégg koo xam ne nii yaa ngi tëgg fii Lemzo jamono di tëgg gore ñëpp bàyyi la fi dem année boobu kan mooy roi bi Aliou Mbaye waxal demoon na ba ñoom Aliou Mbaye Ndeer di ko xatal Fallou Dieng di ko xatal Manel Diop mi xatal na ko fii yaa ngi dégg même Jules Faye sax am na taamu mu jël mu nekk topp fii dañ dañ da affaire bi da daan at bu jot ku nekk topp da daan am mais léegi nag affaire bi moo bëri ay yoon ba nga xam ni xamoo kan mooy kan ak kan mooy kan parce que artiste léegi dafa yomb da ngay gis artiste boo xam ni benn single lay génne rek luye ji appartement yorul lu dul ñeenti tubay ñeenti silet maa juróomi daal abbu oto yaa ngi dégg kooku dootul way way wu dawloo deret way wuy dawloo poos lay wut parce que këram bàyyi na fa location bàyyi na fa njëgu ndox bàyyi na fa yooyu kooku day way lu baax day topp benn nit benn dóorkat di ko way dóorkat bi di ko jox rek waxa rek parce que way boo seetee way mhm. ak ñoom coon fekk niñ doon waye yow yaa gën a xam ne way yi bokkul dañ doon yeete waxa rek ba pare boo mosaana amoon na producteur yu am ful la ñoo fi newoon am na ay temps mhm. producteurs yu am fulla ñoo fi nekkoon buñ la musaan a déglu nga nar a way yenn way yoo xam ne buñ dégloo way bi xam ne peuple bi temps boobu tamit fekkoon na fi peuple bu am fulla mhm. da ngay way wayoo duñ jënd say way way yu bëri fii bu doon jamono ju njëkk ja mhm. woo ko du génn seen kër seen waa kër sax du leen neex doo leen di doo leen di comparé ak ñuy produire jamono ji nag lan nga leen di wax producteurs yi ñuy produire léegi waaw non loo jot génne musique bi léegi loo jot génne sa un bi yooyu noonu kay bu demee ba am kon kay lépp musique la waxa rek. jàppee woo ko way daal. eh yi sax ay fecckat amatu fi ay karateka laa fi nga ne ma. ay karateka lañ. fecc mu xam ne da ngay jël ay pause. di dóor ay kurpañ di naaw ak i kurpañ. di naaw ak ay maajeexi. dama ne jàmbaar man maa ne la fecckat amatu fi ay karateka laa fi gis. même fecckat yi waale sekk sa waale sekk yi. non dama ne danga may non danga may déglu ma wax la mani fecckat yi laa wax de. Mhm. man Waly wax naa la ne actuellement nii musique bi ci moom la nekk mais dama ne la fecckat amatu fi ay karatéka laa fi gis. ay karatéka hmm. dafa amoon si fecc. man kay xaw ma ci ay loxo yoo xam ne day dem. yaa ngi dégg ba pare fecckat yu njëkk yi dañ daan sol suñu suñu ñu ñun. sol loo xam ne aada réew mi la. mais léegi li ñuy sol taatu neen la. taatu nen dèjà la ñuy def ba pare nekk ay karatéka ay sawalin ay karatéka laa fi gis ay sawalin. ak ay ay yooga ay yooyu daal kum gën a mën a yooga fecc yoo xam ne da ngay fecc mel ni kuy daanoo jóg yaa ngi dégg affaire kaam wala dara xam nga fecc si lan lañ ko jógee si dof buy say say ma rafet ci la joge xoola benn borom xam-xam dañoo ñëw ne ko diw dafa réew mu ne xanaa day fecc fecc yëfu reewande la ma wax la ko taasu taasu taasu yëfu gaaruwaale la mu ngoog aca comme ça pour wan la la culture dafa naaw mm-hmm. xalam boo ko doon jaay deux cent kenn du ko jënd xalam léegi xalam xalam laa wax de xalam mm-hmm. kenn du ko jënd kooraa boo ko jaayee mille francs kenn du ko jënd sa doom nga koy jox mu fowee te kooraa xalam riiti loolu mooy suñu affaire ak tamaji ndënd bi mais trompé ngay dajale marimba wee wee wee wee musique bi sax day degu ci kaw wax ji yow loolu nga may laaj quoi pour ñenn ñi quoi yow sax loolu jarul woon ngay déplacer sa kër pour ñëw laajte ko. parce que musique mhm. carrément fu mu tool nii yow euh, lan nga xam. karatéka bi nga wax moo ma jaaxal ci ban ban groupe nga ko gis. fecckat yi ay karatéka lañ déggoo de. fecckat yi yëpp ay karatéka lañ. fecckat bu daan mën a fecc dëgg dëgg dëgg dëgg. feccum réew mi dafa am nooy ay note yoo xam ne boo ko feccee rek nit ñi dañuy xam ne lii mooy mbalax yaa ngi dégg. Mhm. am na not boo xam ne boo ko feccee dañuy xam ne lii feccum bambara la. am na note boo xam ne boo ko feccee dañuy xam ne lii feccum naar la am na fecc boo xam ne boo ko feccee dañuy xam ne bii feccum joolaa la am na fecc boo xam ne boo ko feccee dañuy xam ne bii feccum séeréer la mais ñoom li ñuy fecc lan la lépp la ñuy boole ay karaté ay naaw ay wàcc fii ay écarté ah ay lëmbal am na bari na fi jigéen ñoo xam ne li ñuy defal seen jëkkër hmm. ci biir nekk moom la ñuy def ci fecc mi yow leer na la ëpp naa man dara leeruma ci jërëjëf